ay ca mbokk yi ñoo ngi leen di bëggee waaye di leen ziar bu baax a baax di leen kontaane rawatina yéen ñi nga xamante ni yéenay bàyyi xel Lutte Motivation waaye mbokk yi lépp loo xamante ni xibaar bu neex la ak tiis dañ koy partagé ak waaye yàlla na yéex waaye mbokk yi xibaar gu neex moo am tey xibaar bu neex moo ñu dal ci li nga xamante ne mooy làmb waaye mbokk yi buñ ne leen combat Zarko ak ki nga xamante ne mooy ñaamu ndaw taxaw na. loolu la ñuy wax ñu koy xar ci commentaire yi waaye mbokk yi Zarko ñaa bu ndaw taxaw na Gaston production moo fa jaar ñu ngi leen di jaajëfal ci combat bu ñu taxawal mu nekk combat bu spécial combat bu nar a neex parce que ñaari jàmbaar la ñaa bu ndaw Zarko waaye mbokk yi loolu loolu yëpp laataa muy antu sarko dafa am ku mu war a jëflanteel ba pare muy kan ñu ne Diène Kairé

Zarko ndax dafa waroon jël ñaa bu ndaw wala Zarko est-ce que mënul woon xaar ba combat am jàll ak Diène Kairé mu door a jël ñaa bu ndaw waaye mbokk yi Zarko naka lay préparé ñaari champion ñaari ndaanaan yoo xamante ne dañoo nekk ci yoon ñu ngi leen koy laaj ci commentaire yi waaye mbokk yi amaa beneen laaj bu ma leen di laaj gis nañ combat Zarko ak Diène Kairé empleur mu war a am. visibilité bi mu war am dafa xaw a des est-ce que combat ñaa bu ndaw bii est-ce que du ko nëpp est-ce que combat ñaa bu ndaw bii li mu mun a apporter ci visibilité actuellement est-ce que combat Diène Kaïré ak Zarko actuellement dina ko mën a apporter ci visibilité ak coow gars yi ndax Zarko mënul woon xaar boo combat am jàll ak Diène Kaïré mu door a jël ki nga xamante ne mooy ñaa ndaw bu ko defee làmbam ji gën a am coow gën a am ampleur làmb joo xamante ni ñëpp koy xaar parce que boo tuddee ki nga xamante ni mooy Diène Kairé say xel day dem ci ki nga xamante ni mooy Père Kairé mu yàgg yóbbu mbër yàgg taxu ay champion ay daanaan kon làmb doomam dafa war a nekk làmb joo xamante ni làmb ju am visibilité la Zarko tamit buñ ko tuddee tudd champion tudd ndaanaan yaa daan Ada Fass ak doy na waaye mbokk yi ñu ngi leen laaj ci commentaire yi combat Zarko ak Niang Ndaw ndax mu woon xaar ba Diène Kaïré bëre ba pare ak ki nga xamante ni mooy Zarko ay mbokk Niang Ndaw lii moo leen arrange bu ñu seen bëri am combat ay mbokk Zarko tamit bu ñu Zarko am ñaari avance waaye ay mbokk Diène Kaïré bu ñu déggee lii. dina am loo xamante ni dina wàññeeku ci ñoom waral loolu xel yi demul woon ci ñaabu ndaw ak ki nga xamante ni mooy Zarko ñaabu ndaw Talfa lañ doon wax ñaabu ndaw ak Tafa Mbër série ndax béngin ci wala bëggee bëggoo leen ci loolu yëpp dinañ ko xaar ci li nga xamante ni mooy commentaire yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen kontaane di xaar yeneen xibaar bu ko defee ñu partagé ko ak